ndeysaan arbitre baa ngay wax ak ñoom gannaaw bañ leen passé visite ba pare passé nañ leen visite ba pare moo ngay xool ay superviseur am di wax li làmb bañ ak li làmb nangu sifflé na ndeysaan kookoo ngay dóor ca gàllaaj ya ndeysaan moom caat daaw da faal dóor na gàllaaj yi dóoraat gin bu yof moo leen won ginnaaw ngemboo ngembulu vert lëngoo ay sengooram caatu Daawda Faal mu nga taxaw taxawaayu mbër gin bu yoof mu ngay wër wërloo ndeysaan léewtoo leen baa ngeen bëre baa ngeen xeex baa ju dem ñibbi moo ngi noonu ndeysaan Modou Lo moo moo man 49 booy caatu <laughs> Daawda Faal Modou Lo <laughs> moo man 49 booy loolu kay jarul wax caatu <laughs> Daawda Faal gin bu affaire bi caat la ndeysaan hee problème yaa ngay tàmbale nag caat Daouda Fall gin bu gin bu seen gauche caat Daouda Fall seen droite moo ngi noonu nee naa leen suba Jaks Wrestling Production moo woote ci diggante Liss Ndiago ak Ardo ndeysaan bu ko kenn tardé arbitre woo na leen ci digg géew bi nee na leen kaay leen fii ngeen bàyyi dem ci côté ay yow yàq na caat daaw da faal gin bu yoof ee eh, caat daaw da faal moo ngay dox ci kaw caat daaw da faal a ngay dox ci kaw nee na seen Modou Lo moo mën 59 booy caat daaw da faal gin bu yoof ñoo ngay lewtoo ñoo ngay lew yoo caat Daawda Fall jël na tànk ba gin bu bañ na waa caat Daawda Fall lu muy bëree ni gin bu yoof ngay dóor gin bu yoof dóor dugal na benn ku ñaar loolu mooy rokkos caat Daawda Fall gin bu yoof caat Daawda Fall ci suuf gin bu ci kaw ndengeñ na ko caat Daawda Fall gin Thiat Daouda Fall gin bu yoof Thiat gin bu yoof gin bu yoof a ngay dóor Thiat Daouda Fall gin bu yoof Thiat Daouda Fall gin bu takk na ko takk daan na ko Thiat Daouda Fall daan na gin bu yoof Thiat Daouda Fall daan na gin bu yoof Thiat Daouda Fall daan na gin bu nee na kaay le da leen di nee na da leen di rey caat Faal daan na gin bu yoof caat Daawda Faal daan na gin bu yoof hee géeja waay sàjj na ikiri Balla Gaye am nañu ndam <laughs> ikiri Balla Gaye am nañ benn ndam laay laa caat Daawda Faal daan na gin bu yoof ikiri caatu xale la xaritu yaayam ko mba la